daleen ak jàmm mbokk internet yi seen njariñ TV wax nag ci benn Bokk Yaakaar ak ñi nga xam ne ñu nga fay jóge bëri na loolu ki nga xam ne nag moom moo bañoon ba tëdd ne du jox li nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko ab quittance jëm nag ci dépôt yu parrainage yi di Cheikh Issa Sall nekkoon nag directeur général bu caisse de dépôt et de consignation nekkoon actuel maire bu Mbour moom Cheikh Issa Sall moomu nag daal di nay dakkal ab yëngoom ci biir APR mom nak Cheikh isa Sall momule boobu lépp départ ñu ne nag la ca topp daal créer parti politique bu bess bu ñu wowe nak Union nationale pour l'intégration le travail et l'équité du unité bu tournant politique bobu nak di intervenir ginnaaw ay année yu bëri mu am ab engagement ci bir APR ci ay début politiqueum Cheikh Issa Sall nak dafa fondé won ben mouvement local euh, du peko nak am dem muy agir avec Macky Sall pour le développement de Mbour muy témoigner nag intéret bi nga xam ne am na ko ci suqali ville bu Mbour foofee nga xam ne sax fa la ganisee àdduna ci noonee nag progressivement mu jël ay distance am jamono ji ak parti présidentiel bi Cheikh Issa Sall moom nag dafa remarqué wu en tant que directeur général bu CDC ci mois yi ñu génn ci bi nañuy amal lii di campagne électorale ci benn épisode médiatisé bi nga xam ne dafa soxal caution bu Ousmane Sonko moom mee nag bëggoon a porter candidature am ci élection présidentielle bi mais caution bi nak dañu ko ko bañal te Cheikh Issa Sall mo def li ni mel situation nak éclaté novembre 2023 ba taxone mu am bruit bu reuy bu alimenté won discussion yi jëm ci nuk candidature yi ci présidentielle bi polémique bobu la nak la ko yokk rawatina Cheikh Issa Sall ginnaaw bu mu récupérer caution bi te it musul délivrer quittance bu am solo jëmale ko nak ci ñu valider li dossier bu président Ousmane Sonko ba tax nak ñu bëri doon ko critiquer ak création bu unité cher isa Samb mel nak dafa bëgg a ubbi benn page bu bees jëm ci carrière politique am te it mu one warn définitivement li nga xam ne nag moom mooy parti APR.